pose toujours cette problématique. man ci ñi tok fi sax diko wax ne ko impensable mais en réalité. mi ngi bëgg a yey soo xolé de plus en plus. Euh. li nga xam ne mooy xew depuis un certain temps. Hmm. soo ko analyser da ngay japp ne tay ñi nga xam ne ñoo fi nek ñu organiser élection à date due. parce que bu fekkente ne dañuy jëm ci élection alors que les règles du jeu de plus en plus dañuy gis ne dañ koy fausser dama dama dama dem ba sax yenn yi ku mel ni professeur Mary Taw Niane dana lii fi nekk ma tey la du leneen parce que mooy damay def li nga xam moo ma neex en réalité loolu moom lañ fi gis parce que man musuma gis une décision de justice génn une administration nga xam ne dafa war a soumettre à la loi taxaw tem ne du ko du ne ne elle ne va pas se soumettre hmm. mooy affaire DG bi ñuy wax ak l'ordonnance du juge de Ziguinchor Sabassy Faye boobu ba léegi juge bi dañ ko sax néewal man c'est la justice sénégalaise moom la ñu néewal parce que quand une décision de justice sort je crois que dafay concerner toute la magistrature toute la justice sénégalaise donc si demee ba dañ finalement ce n'est pas le juge de Ziguinchor qu'on affaiblit mais c'est la justice dans son essence et dans son ensemble moom la ñuy moom la ñuy affaiblir. Hmm. te ils sont au sommet de la pyramide mooy kàngam yi c'est-à-dire vraiment les magistrats dëgg ma ba léegi ñu wax ci lu jëm ci jëm foofu. Hmm. donc déjà ça c'est un fait ñu waxati loolu le président de la république xëy jël waa Sénat yëpp dàq leen il est vrai que seen mandat arrivé na à expiration mais bañ ko waree def defuñu ko c'est-à-dire que dafa am loo xam ne nit bu fekkente ne ay texte dafa wax ne bu seen mandat jeexee te amuñu sax ñu am prolongation fa mu yem c'est-à-dire nañ leen fa génne defar c'est-à-dire wutaat yeneen sénégalais parce que compétence yi bëri na fi le président de la république kaw Doudou Ndir ñun wax nañ ci waxaat ci waxaat ci. oui il ne l'a pas fait mais quand Doudou Ndir a un comportement boo xam ni nii. méngoowul ak li nga xam ne moom la waa DG yi def président bi xëy bale yëpp te xam nga li ñu naan xam ma li mu daje moo tax ñuy wax loolu mais. tombe waral ay gaaf ñëpp ay gaaf ñëpp dañuy jàpp ne. <laughs> Eh. su fekkente moom dafa wax waa DG jox leen ay fiche de parrainage Ousmane Sonko président bi xëy dàq leen dañuy jàpp ne wax jooju président c'est-à-dire comportement boobu neexu leen te nit ñi noonu lañ ko analyser mais li ci gën a doy waar mooy non seulement dàq nañ leen. mais ñi nga xamante ne ñooñu lañ fa teg dafa am ñoo xamante ni c'est des nominations ça souffre d'illégalité illégalité oui. <coughs> parce que su fekkee ne y a un principe de neutralité et d'impartialité boo xam moom moo war a guider c'est-à-dire le choix même des gens de la Sénat. dañu gis ne d'abord maa aw Fall euh, Cheikh Fall boobu benn. Cheikh Awa Balla euh, il de la per mm-hmm. deuxièmement aussi euh, le Serigne Ndiaye là Serigne Amadou Ndiaye aussi aussi il est de la paire c'est un responsable politique mbos donc ñooñu déjà dañu connoté wu. quand même ki nga xamante ne dafa connoté wu ba pare. te loi bi am na lu mu ci wax. non non xamul tax ci ci ñu war a composé équipe bi nga xam ne. ñoo war a xam nga xam nga Sénat ñooy arbitré. mais yow arbitre mënul far ba pare c'est pas possible. pas être jugé parti keneen ki nga xamante ne aussi au même moment mi ngi conseil constitutionnel ba pare ñu indiwaat ko encore Sénat loolu c' est un problème parce que même su fekkee ne ñenn ñi ngi naan texte yi waxu ci dara mais non attention dama ne dans l' esprit mi ngi mel ne tey kon loolu bu fekkee ne nit ñi bàyyi nañ mu demee loolu. Ça veut dire que demain le président su ko a mu jël sept sages du Sénat du euh, conseil constitutionnel il mm. yóbbu Sénat ne far euh, teg c'est un problème alors que le conseil constitutionnel moi aussi arbitrer parce que le Sénat a xam le Sénat rabattre au niveau du conseil constitutionnel. mais c'est encore un problème C'est li de doon wax le protocole additionnel de la CDA, cest à sur la bonne gouvernance daf à six mois des élections waruñu changer une règle du jeu boo xamante amul consensus au niveau des acteurs mais quand on change des membres de la Sénat ça fait partie des règles du jeu Lolo aussi président finalement les gens vont se dire que la loi n'existe plus mais ce qui existe moi li président et en réalité comme de jour en jour et que les gens aussi maintenant font fi même à des décisions de justice c'est un problème parce que vous savez même ce qui s'est passé euh, à la cour de justice de la CEDEAO. oui quand l'agent judiciaire de l'État va jusqu'à Abuja pour voir ne n'y reporter parce que moom dafa a problème internet et électricité moi je crois que nous nga gérer internet et électricité bi war nañ ko oui mm. parce que ça c'est un problème de l'image du Sénégal qui se pose L'autre, ça veut dire quoi Quand donc des investisseurs vont se dire que donc le Sénégal ça internet mënuñu ko am bu baax mënuñu am sax en centre ville mënuñu fa sax am ça c'est un problème ou bien lui il vit dans un monde boo xam particulier où il y a pas d'internet il y a pas d'électricité hmm. mais ñun alhamdulilah électricité bi cher mais nous avons de l'électricité am <laughs> euh, internet bi cher mais quand même nous avons de l'internet en abondance hmm. donc nag moom na wax fan la ba au point que wala fan lay liggéey au point que tout ça nous dem beaucoup ko au niveau de donc ça veut dire que tout simplement finalement tu vas te poser même des questions est-ce que réellement ils veulent réunir les conditions pour aller vers une élection, paisible. parce que y parce que yi problème te gis nga mm. dans les années 98, dans FRT FRTE le Front pour la transparence et la régularité des des, élections te a Diop de croix. avec le général les gens ont battu le macadam je me rappelle Samir Abourisk, à l'époque ko ci ko ci les gens avaient organisé une marche c'est-à-dire pour contester la l'illégalité de la nomination de du général Dian hmm. ba c'est l'URD de Djiboka ñom sen walu recours au niveau de devant le Conseil d'État c'est-à-dire pour wane ne sa nomination quand même a été irrégulière à la veille de la décision c'était le 17 juillet de à la de la décision qui le général vient d'aller démissionner. parce que le conseil d'État, ci boppam naroon na jox dëgg faire rire. mais ce qui est Moi, fi manqué c'est C'est yow loolu nga posé comme problème. cest à dire que gisuñu cette mobilisation de l'opposition par ah, rapport à voilà donc par rapport à ce qui se passe. donc finalement. li nga xamante ne ñun moom la ñuy hmm. est ce que réellement toutes les conditions sont en train d'être réunis pour aller vers de véritables élections. C'est un problème. Maintenant, mm. les candidatures, mais de tout temps, le président, c'est ce qu'il a fait depuis qu'il est là. On a éliminé Karim Wada des élections, on a éliminé Khalif Sall. Aujourd'hui, c'est le tour de son Et d'ailleurs, mm. jusqu'à aujourd'hui, on ne peut même pas parler du cas de Karim Wada. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ba Jusqu'à aujourd'hui, Karim Wade dina fay du fay dina fay fay na du fay et cetera ba posé problématique xamuñ ci den le problème le problème de de de de de la double nationalité de de de Karim Wade ba léegi aussi mi ngi fi donc cela veut dire quoi ça veut dire que ce sont des armes yi nga xamante ne pouvoir bi su ko bu mu activer ko pour combattre encore la candidature de Karim Wade. je ne lui souhaite pas. je veux des élections inclusives mais comme que boobu ba léegi nit ñi ñu ngi ne tekk waxuñu dara. Mm nañ dem de façon ce qui est sûr et certain mooy. ce qui est en train d'être de de de en tout cas d'arriver à Sonko. na ci nit ñi bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax parce que les gens pensent que parce que c'est Sonko ñenn ñi ils vont laisser faire pensant tout simplement que même Sonko su bokkul ci élection yi aussi. peut-être ñenn ñi sax ils s'en réjouissent. non xool ni dama bëgg a dalal seen xel ne <laughs> même Sonko tey. Euh. extraordinaire bu bokkul woon ci élection yi. Euh. nañu xam loxo pasteur du génn ci élection yi. très bien loolu lenn. c'est clair. alors euh, Ibrahima Pouy euh, sur la question laaj le régime n'est-il pas dans la logique d'éliminer euh, euh tous ceux qui représentent euh, une menace pour lui et wax nañu fi léegi Karim Wade Khalifa Sall aujourd'hui Ousmane Sonko ñu ngi jëm ci une élection bu nga xamante ni. Euh, véritablement ñu bari ngi poser la question ci yenn ci ay irrégularité peut-être ñu nek di gis euh, kenn waxu ci nam dinañ ci ñew surtout du côté de l'opposition ndax mo fas yéene deuxième thématique mais naka nga jangaté loolu et le peuple toujours perdant parce que ñu ñuy éliminer souvent ci euh, langue gi duñu duñu duñu n'importe duñu n'importe qui bon je crois que bu ñu fait processus électoral bi hum dañuy tàmbalee d' abord ci constitution bi nga xamante ne moom moo wax ne dañu respecter le calendrier électoral. Mhm. je crois que calendrier électoral bi état du Sénégal mu ngi koy jusqu'ici oui. jusqu'ici élections yi mës a am yëpp dem nañ ko ci à date échéance. Mhm. bu toppee procédure électorale bi nga xamante ne tey mooy permettre tey ñu dem ci élection bu voté. Mhm. Sénat bi ñuy waxtaanee tey moom moy kilifa bi nga xam ne moy mooy chargé wu à l'organisation lepp lu jëm ci organisation élection yi ñom amuñ ci frontière tay